émission bi ci kaw suuf yëkkati ay kàddu yoo xam ne kàddu yu cant la ay ak i kàddu yu ngërëm yoo xam ne nag mi ngi ko jaarale ci ki nga xam ne mooy jëwriñu bis bi teeru kàddoo muy Serigne Abdou Samad Mbacke moom Cheikh Souhaïbou nga xam ne moom mu waroon toog fii yëkkati kàddu ci sëriñ bi ci turu sëriñ bi kon nag ci ndigalu sëriñ bi ak ci turam moom ak ci turu njabootu sëriñ Sohaybu bi gépp ñu ngi nuyu mbokki taalib yëpp nuyu mbokki jullit yëpp waaye di jiital ci nuyoo bi nag ak siyaar bi ak Cheikh Mahamad ak Cheikh Mahamadul Muntaxa ñaan sun boom yàggal ko fi lool te ko ba mbooleem li mu sumb ak li mu tàmbali ak li mu naal lépp ci liggéey Seexul Xadim mu àggale ko tan tanaane ko moom sëñ baa ngi koy bu baax a baax te di ko yëpp ak ngërëm yëpp nag mi ngi ko ci jiital ndax xam nga ne sëriñ bi ni mu ko baaxoo defee lépp lu muy def bala ca sañ tàmbali dara dana dem ci moom mi nga xam ne moo fi nekkal Seex Xadim laaj ko ci ndigal bu ci amee ndigal soo ko sañ a def moo tax màggal gi at mu jot bu accès dafay dafay dem ci moom wala mu yónnee ca laaj ko ci ndigal na ko baaxoo defee noonu la ko defee bi màggali as yaran jógal na boppam sax ginnaaw bu ginnaaw boo xam ne yónnee na ci laaj ndigal ba noppi jógalaan na jógalaan jógalaan na boppam dem cherche dem cherche Cheikh Mamadou Mountakha siyaare ko yeesuwaat ndigal yi si Mountakha it bëgg ci lool rafet rafetlu ko lool joxe ci ndigal waaye soññee ci kon cant yëpp ak ngërëm yëpp si moom la ko sëriñ moom la ci sëriñ bi jiital ndax boobee kat bu joxe woon ndigal na bi ñu ko def sëriñ bi du ko def kon nag jox gi jox may gi mu ko may ndigal gi mu def ko rek loolu loolu leen ak cant loolu doyul nag mu yónnee mu yónnee fi ay ndaw yu mat ndaw te bis ak accès it mu yónnee war fi ndaw loo xam ne moo ko moo ko jëmmal ci bis bi teewal ko fi te mooy Cheikh lu Basir mi nga xam ne mooy mooy kàddoom moom Cheikh Abdou Khadir mu ñëw mu ñëw fi ànd sëriñ bi teewal Cheikh Mamadou Mountakha ca cérémonie ba yëkkati fa kàddu yam fa yëkkati di kàddu yu rafet di kàddu yu mat di kàddu yu jotale kon nag sëriñ bi nee na mi ngi mi ngi dellu di sant Cheikh Cheikh Mamadou Mountakha bu baax a baax te di ko ñaanal bu baax a baax te feddali ak laxasaayam ak taalibeem te ay ndigalam fas yéene lépp lu mu ñu def ci seen këm kàttan waaye di di di di ci di ci jaaraal di santaal nag Cheikh ba si moom mi nga xam ne moom la suñu Cheikh moom ndax yebaloon moom it sëñ baa ngi koy beral cantu bopp ndax ginnaaw ndigalu sëriñ bi euh, dafa am taxawaay bu mag bu mag boo xam ne da ko am ci màggal gi lu bokkut li mu seq bi waaye màggal gi da ci am taxawaay bu mag boo xam ne démb euh, Cheikh Mamadou Mbacke Cheikh Mamadou Mbacke mi nga xam ne moom la ñuy yëkkati kàddu ci tuur sëriñ na ko euh, ba ci gën a ràññee ko rek xam ngeen ne màggal gi at yi yëpp baas bi ñuy def ci penc bi moom moo ko moo ko sasoo ñaan ko sëriñ bi sëriñ bi jox ko ñu ndigal at mu jot moo koy moo koy moo koy def loolu nag jëf ju rëy la loo xam ne nun taalib taalib yëpp la ko defal ndax ñun taalibe sëriñ Souhaïbou bi ñoo ko waroon def waaye nag moom kon a xam ne lam nam ko waxee démb rek diggante diggante ak sëriñ Souhaïbou kon ñu ngi jaar a ci cant googu ñu sant sëriñ bi di ko ci dugg di ko laal moom mi nga xam ne moo moo fi teewaloon teewoon kàddoom ginnaaw boo xam ne sant nañ Cheikh Mouhamadou Mountakha ba noppi nag sëriñ bi wax na ne mi ngi sant mboolem ñi bokkal suñu soxna ñëpp di ay rakki boppam commencé ko ci Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy rakkam di jëwriñam ak mboolem ñi topp ci moom muy góor ñi ak jigéen sant na leen bu baax gërëm na leen ndax lépp loo xam ne digle na ko wala mu nekk ca ñun ñëpp ànd dañ ko moom ànd mu rafet te lépp lépp lu mu sumb yi danañ ko ànd ak moom kon nag suñu baa leen sant di leen gërëm bu baax a baax di ñaan suñu boom barkeb sëñ Tuba euh, suñu borom sàmm leen te wéral leen te kàttana leen euh, ba ñoom li ñuy yéen a liggéey seen waajur tedd ba section bi lépp ñu àggale ko ginnaaw loolu sëñ mi ngi sant mboolem ñu bokkal sëñ Tuba waaw nañ ko waxee woon ci woote ba rek dafa mel ne sëñ son bi moom euh, njabootu sëñ Tuba yi dañ ko def seen seen seen seen seen waajur bopp ba tax na lépp loo xam ne sëñ bi woote na ko te jëme ko sëñ son bu day mel ne kenn du ci des ñoom ñëpp la commencé la commencé ci kër Cheikh Cheikh Amadou Moussa ba ci kër Cheikh Amadou Mourtala ba ba ci kër suñu suñu suñu suñu suñu maam yi jigéen ba ci kër ñi bokkal Mamour Anta Sali ñëpp kër Mamour Jaar borom Saam kër Maam Cheikh Anta kër borom Daaru Mooti mboole mbokk yi nga xam ne rek mbokk Serigne Touba lañ <laughs> ak i njabootam kenn ku ne boo teewul ci bis bi yabal nga yabal nga fa ndaw lu mat sëkk mu teewal la fi ànd ko sëriñ bi loolu euh, loolu nag lu rëy la ndax boo wootee sañ bokk jiitu ja loolu dana tax sam xel dal dana tax sa sa sa sa xol sàdd kon ñoom ñëpp suñu baa ngi leen sant di leen gërëm xam ngeen ni lu jiitu bis bi am na bis bu fi amoon muy euh, maktaba bi nga xam ne sëriñ bi da ko doon euh, te doon ko ubbi xam nga ne ñaari bis jegeen ndax daan moom màggal benn benn benn bis dox fi waaye teewut nañ teewoon ci bis booba ci jotaay bi yàgg lool teewul bis bi bis bi ñoom ñëpp dañoo dañuy ñëw ànd àndal ko ak moom te xëy na bu ñëman ci loolu sax mu day sëkk kon mbooloo ñuy bokk suñu jox bàyyit kenn sëriñ bi sant na leen gërëm na leen waaye di sant it mboolem ñi nga xam ne ay seex lañ ci yoon ci yoon mur yëpp képp koo xam ne sëriñ Tuubaa moo defar sa maam jox ko la mu yor sëriñ bi sant na leen ndax kenn desul ni ma ko waxee ci mbokkeel noonu la demee mboolem seex yi daanaka su bari teew nañ fi ngir ngir te loolu lépp rek day day wane euh, euh, fonk guñ fonk sëñ Souhaïbou ak ak ak jàpp guñ ko jàpp waaye euh, jàpp guñ ko jàpp nag moom mi nga xam ne moo fi nekk moo fi nekkal sax Souhaïbou kon Cheikh yëpp suñu bëgg leen sant di leen gërëm di beral ay cant nag ñi nga xam ne sax ñu xëy na ñoo ci waroon jiitu muy daara alxuraan yi nañ ko waxawoon ca woote ba rek sëñ bi ko ne xam ne dundam gépp ci alxuraan la ko jeexal daan ko jàng di ko jàngalu di ko jàngale kon lépp li koy defal alxuraan moo ci njëkk moo ciy mujj ci woote bi sëñ bi soññoon ci daaray xawaare lool ak daaray kaamil yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi muy wala boog yi nekk sax ci barab yi sëriñ Tuubaa sanc yëpp ndax bépp dëkk boo xam ne rek dëkkub sëriñ Tuubaa la wala nga fa nekk sëriñ Tuubaa joxoon ko di nga mu sañ ko xam ngeen ne daaray kaamil yi yaatu na ba àgg fépp euh, daaray yëpp gis nañ ci gis nañ seen taxawaay ci bari seen lim agsi agsi na fi euh, xëy nañ ci bari seen lim daan daan njàng bu bu ci ñëw bu ñëwagute danañ ñëw waaye la day mel ne lim yi nga xam ne jot nañ ko ci ay kaamil lim bu yaatu la boo xam ne jéggi na dayoo waaw te loolu nag seen seen seen seen cofeel seen soxna bi la ak xa ak ak xam gu ñu xam nag ab cëram ci alxuraan cër boo xam ne yàlla moo ko ko day moo ko moo ko ko jagleel mm-hmm. waajuram wa euh, faggul ko ko mm-hmm. ndax doy na sëkk rek mooy yàlla taw taw taw fexe ji ko sunu boom defal moom feeñ ci weeru koor te ku ne ku ne xam ne ne weer weeru koor mooy mooy mooy mooy anniversaire alxuraan ci la ci la alxuraan wàccoon moom sunu boom wàccee ko ci mm-hmm. sunu boom def defalaat ko ci yenn taw feex mooy ci weeru koor ci la ci la ci la wuy ji borom ci guddi ci guddi lay dox gi nga xam ne ci la ci la alxuraan wàcc kon nag moom day mel ne suñu boobu moo ko moo moo ko moo moo ko ko defal moo ko defal ci boobu ci alxuraan waaye waajur mu tàdd nag mel na nag loolu nag moom fàggu nag fàggu nag jóge ci moom ne ko ñëpp xamee yaari ba noppi la mu ko dénkoon mooy alxuraan waaye nag mu bay ci mbayin wu rafet boo xam ne jàpp naa ne ba fii ma wax ba fii wax yow xamaguñ ci histoire ku ci jaar fi mu ci jaar ndax koo xam ne lu ma ñeent fukki at ak juróom yu tegal toog ko ci benn dëkk ci génn kër génn wa dem fenn la nga fa nekk woon lépp soo soo xëyee di jàngale alxuraan di ak di yar ndaw ñi wala nga koy jàng loolu loolu loolu ba li ëpp ñëbal suñu jibaa gi nañu ko xam ne ñëpp ñëpp fële fële ñu xam ne alxuraan na ne na ci cër bu rëy yooyu waaye cër boobu nag day mel ne ñi mu bokk alxuraan mu nangul nañ ko te xam nañ ko baax baax moo tax màggal gi bu agsee eh, fu ne la ay lim di jóge di ñëw fu ne la ay lim di jóge di ñëw ba ci ba ci ba ci sax suñ suñu mbokk julli yi nga xam ne duñu ay taalibe euh, bokk ci yoon yi <laughs> kon nag ñoom ñëpp daara alxuraan yëpp ak fu ñu mën a nekk daara kaamil yëpp ak fu ñu mën nekk nañ yëg na sëriñ bi yëg na seen liggéey sant na ci bu baax baax gërëm na ci gërëm nañ ci bu baax a baax ndax loolu rek loolu rek mooy mooy màggal gi bu ci yemoon sax mu doy sëkk kon nag sant nañu bu baax a baax waaye di ci di ci di ci di ci di ci dugalaal ne kuréel kuréel xasida yi xasida alxuraan moom mënuñoo tàggoo euh, moo tax it euh, kuréel xasida yëpp sëñ baa leen sant eh, di ko jaaral nag ci daayira fulku mason bi nga xam ne naka jekk moo moo daan jiite liggéey bi ci wàllu ci wàllu xasi kuréel kuréelu xasida yi di ci am taxawaay bu am solo eh, ñun ñëpp suñu baa leen sant di leen gërëm mooy kuréel yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew ndax yéeg na ne fu nekk kuréelu xasida nekk ci Sénégal wala wala ci wala ci bitim réew jàng nañ xasida xasaayid yu bari yoo xam ne yëpp dañ ko def ngir suñu son bi loolu nag suñ bi xolam sant na ci bu sant leen gërëm bu baax baax ginnaaw loolu ñu sant nag ñi nga xam ne bis bi euh, ginnaaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw mbokk yi ak taalibe yi euh, taxawaay seen taxawaay nag moo tax euh, ndax da ci am ci am loo xam ne taalibe yi ñoo ko ñoo ko moom mën nañ ko waaye am na ci loo xam nag mënaluñ ko seen bopp loolu nag ndax am ñu ko seqal ñu war cee ñu war cee taxaw ànd ci ànd cee ñun commencé ko ci commencé commencé ko ci commune bi nga xam ne Abdou Lahad mooy maire bi nga xam ne bis ba bis ba accès lépp lu ci am ci ay taxawaay ñoom ñoo ci jiitu ñoo ci mujj. Mm-hmm. kon nag sëñ baa ngi sëñ baa ngi leen sant bu baax a baax di jaarale cant kooku nag ci Abdou Lahad Ka yi ma ko waxee léegi mm-hmm. am na taxawaay yu am solo yoo xam ne taxaw na ko ci màggal gi ndax lépp loo xam ne lu lu lu commune bi waroon ci màggal gi wala sax loo xam ne waru waru leen ci te waroon yeneen service te mm-hmm. na ay jafe-jafe am ci loolu lépp euh, gàdduna ko euh, ba ba jëf ci jëf ji jëf ji jëf jëf ci ma sëkk mboolem activité yi amoon ci màggal gi rek commencé ko ci bi ñuy bi ñuy seetal dëkk bi rek yëpp rek lu ci ne tax am na ci taxawaay bu am solo boo xam ne maire tax na ci kon nag Abdou Lahad Ka suñu Abdou Lahad Ka suñu bàyyi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñu boroom liggéey bi nga xam ne kilifa yi teg nañ ko ci loxoom mu àggale ko fa mu fa mu war a àgg di sant yi nag. Euh, autorité administrative yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi yëpp commencé ko ci gouverneur de la région bi nga xam ne euh, euh, bi bi màggal gi accès sëriñ bi bind leetar yëgal ko ko bind leetar yëgal ko président woote woon na benn CRD ci Jurbel an ànd ko ak mbooleem chef de service yi nga xam ne nekk nañ ci département bi ci teewaayu comité bi nga xam ne ñun moom man mii maa ko doon coordonné ñu ànd dem waxtaane màggal yi mboolem soxla yoo xam ne comité bi soxla woon na ko ci loo xam ne dana tax màggal gi yéwén màggal gi màggal gi mel ne ko sëñ bëgge loolu lu ci ne lañ ci waxtaane woon euh, lañ ci soxla woon engagement yi nga xam ne gouverneur jëloon na ko ci turu chef de l'État jëloon ko ci turu gouvernement bi yaakaar naa ne mas naa wax ne bu doon bu doon téeméer mas naa wax ne xëy na 80 euh, pour cent yi matal nañ ko loolu nag lu am solo ndax jëf ju mbat mu yàlla yàlla rek moo ko waaye nag mel na ne yéene yéene yi ñu wanoon daal ak engagement yi ñu wanoon ci CRD bi loolu bi ñu accès ci màggal gi loolu yaakaar naa jë dëggal nañ loolu lépp nag ñi ngi amoon ci ci taxawaay ci taxawaay nag gouverneur de la région Diourbel ànd ko ak euh, monsieur le préfet département ak monsieur le sous mi nga xam ne moo ko doon coordonné kon suñ suñ baa ngi leen sant leen gërëm sant euh, googu nag ak ngërëm loolu nag moom lañ yéegal ba àgg ci ki nga xam ne mooy kilifa réew mi di président mag Sall nga xam ne lu ñu def ci ci ci ci ay taxawaay lépp ci ndigalam ci ci ci ay ci ay directive am ci ay ci ay ci lañ ko defee mhm. kon nag moom it ni ko suñ bi waxee ci cérémonie bi dégg nañ ko sant na ko sant na na ko baax a baax euh, ñaan sunu borom euh, li mu li mu sumb ci réew mi ak li mu ci yéene lépp sunu borom kàttan ko mu àggale ko di sant di sant mboolem ko jàppale ci liggéey boobu muy membre du gouvernement bi yëpp euh, ni ko ni mu ko baaxoo def màggal gi accès yebal na fi délégation mat mat sëkk nga xam ne gala ministre Gallo bu moo ko jiite ànd ak doomam Cheikh Abdou Lahad Mbacké suñu Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ak euh, mboolem ay conseillers techniques yi xam ne ànd ànd nañu moom muy délégation bu mag bu mag euh, loolu sëñ bëgg na ci baax a baax ndax ndax ñu fi ay ay ay njabootam lañ ay taalibeem lañ ñu am fi tax ñu teewaay fi teewaay bu mat sëkk kon nag suñu baa ngi koy sant di ko gërëm ginnaaw loolu it nag ñu sant nag mbooleem daayira kër yi daayira yi nga xam ne dañoo ñoo ñooy daayira kër Sëriñ nga xam ne nag màggal gi lépp lépp ñooma ndax mbooleem lu fi lu fi lu fi am ci ab liggéey mbooleem lu fi am ci ay ci ay taxawaay lépp seen doole seen ñaq moo ko def kon suñ baa ngi sant mbooleem taali daayira bu ajju kër Sëriñ Suhaybu mbooleem fédération bu ajju kër Sëriñ Suhaybu commencé ko ci nekk ci biir réew mi ba ci bitim réew ñëpp seen taxawaay seen jëf lépp lu ma mën na sekk Euh, suñu baa ngi di sant di leen ñaanal euh, di ñaan suñu borom gën leen a yokk gën a gën leen sàmm gën a gën a yokk xéewal yi ba euh, yéen yi nga xam ne am nañ ko ci ànd sëriñ ci liggéey li liggéey bi muy liggéeyal suñu soxna bu lépp ñu ñu mën ko ñu mën koo matale tànn tànn ko moom di sant nag mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ sëñ bi tànnoon na ci biir daayira yooyu wala ci biir ci biir fédération yooyu wala ci biir taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi dénkul leen comité d'organisation bi nga xam ne ñoo ñoo wut ñoo wutu ñoo ñoo wut daayir yëpp wut bi yëpp euh, ni ma ko waxee léegi ñu jiital sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne moo moo moo jiite comité bi waaye nag ñu ñu boole ñu boole woon ak ñoom nag ñu doon ñu ko doon coordonné coordonné liggéey bi euh, kon nag ñu war a nekk seere ci seen taxawaay euh, màggal gi bi ñu ko jàpp bi ñu koy waajal wàccaayu xat na lool waaye ba keroog bis bi bi ndigal li jibee bañ commencé bañ commencé liggéey bi ba bisu tey ji may waxal kenn kenn ci ñoom noppaluwul amuñu amul guddi amul bëccëg boo nañ seen seen seen seen jot seen yitte seen xalaat seen doole lépp def ko ci def ko ci ba yaakaar naa ne euh, ku ne xam ne ne sëriñ bi yaakaar naa ni mu ko bëggoon am ne ko ni kon loolu seen taxawaay la taxawaay boo xam ne dañ ci dañ ciy wut waa kër gi yëpp wut ci daal bi yëpp kon bàyyuma kenn képp koo xam ne rek yaa ngi woon ci comité d'organisation bi ak ak loo ci mënoon taxawaay boo ci mën a taxawee na nga yëg ne euh, suñ bi sant na la gërëm na la euh, liggéey bi mën na sëkk te rafet na ñu ñaan suñu boom euh, luñ ci jëf rek suñ ci waa nangu ñu ko te defal nañ ci lu kawe njor tey ak ëllëg di sant nag mbokki taalibe bi kër gi yëpp rek bay bàyyiwuñ kenn bu ko defee di jeexal nag di sant presse bi nga xam ne ñoo ñoo fi teew tey jii ñoom it xam ngeen ne bañu commencé woote màggal gi ba tey jii ñu ngi ko ànd ak ñun. Mhm. commencé ko ci avant premier yi ñu defoon ñu ñu ko yaataleen ni plateau yi ni ñu ko tasaare émission yi ñu def ci rajo yi mm, sur internet yi euh, ku ne xam ne ne ci temps bu gàtt lañ lañ def lañ def communication waaye yaakaar naa fu mu war a àgg àgg na fa. Mhm. waaw loolu nag day mel ni euh, taxawaayu presse bi la euh, ci seen seen seen seen seen ak seen yitte ak seen jubluwaay ci kër gi kon nag. bàyyiwuñ kenn ci presse ñëpp rek ku ci xam nga xam nga na nga ci taxawee waaye na nga te xam nga ne xam nañ ko yëg nañ ko euh, sëñ bi yëg yëg na ko kon ñi ngi leen ñi leen sant di leen gërëm di rafetlu seen liggéey bu baax a baax ndax kat màggal gi moom la ci ëpp solo ginnaaw njàng ma ginnaaw ñaan yi mooy fexe ba tasaare nag njàngalem sëriñ bi euh, ndax euh, tasaare njàngalem sëriñ bi ndax loolu mooy mooy ñun liñ ci mën a jariñoo loolu nag day mel ne li ko yombal nag mooy mooy mooy mooy média bi Ah, te loolu nag si ñoom seen seen seen taxawaay mm, wane na ko ah, télé télévision yi bu ci bëri rajo yu bari si yu bëri mm, foo foo foo xool rek da nga da nga gis ne ñi ngi bàyyi xel màggal gi kon nag ñëpp ñu ngi leen sant ñu leen gërëm di ñaan suñu borom barkeel liggéey barkeel seen i kër te lu luñ ci luñ ci jëlee ci tuyaaba rek ñu bokk koog ñoom bokk koog mbokk jël yëpp bokk jóg mbokk koog taalib yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom defal ñu tawfiix bañ fekkoon bañ fekkoon déwén ak jàmm salaam te ànd ak yokkute saa yaram baatin wasalaamaaleykum wa rahmatullah